moo tax bu ñu nee actualité nag maman gis nañ jamono ji euh, Ousmane Sonko euh, këram niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko tegee ci ay barrière mënul génn mënul dem fenn alors euh, dimanche bi passé waaye yeewi ne woon dañuy dem yeewi ko pour mu libre mën a dem tabaski ji amaana loolu mën nañoo jàpp que ni sax dafa essuyer ku demee noonu ndax nga gisee li nga xamante ne ni teg nañ ko ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko. waaw dinaa la ci may ñetti baat. Mhm. ma jàll feneen. ndax dëkk bi xamuñu ko dóor mais ku fayu la ñu xam. Euh, benn mooy Ousmane sonk na gën a takkuwaat moom ak ñi mu àndal te xam ne am na leneen luñ koy waajalaat lu gën a metti li fi jaar. ah bon. Mhm. na parewaat takkuwaat xam ne am na luñ koy waajalaat. maman lu weesu li nga xamante ne mi lu weesu li fi jaar. lu weesu li fi jaar. Mhm. li ko dal rek ñu ko gën a jege dañ ko koo yéene. Mm-hmm. mais nañ def attention bu baax. Mm-hmm. ndax man mii yàgg naa def émission naan leen Ousmane Sonko du sama président. Mm-hmm. mais li ma xëcc ci moom ba ma toog jooy ci fan yi paase. dina xëcc ñeneen ak ñeneen kon am na lu xew. am na lu yàlla nar. waaw yàlla na ko yàlla sàmmal boppam. waaw man soxna Seyna bu ko bëgg Ousmane sonk laa waxuma ko pour ñu may seetaan. lan moo lan moo tax nga bëgg Ousmane Sonko. xaw ma yërmande. Mm-hmm. premièrement yërmande gi nga xam ne dama ko am ci moom. Mm-hmm. deuxièmement nga nekk ci dëgg ñu bëgg laa xëcc ci ay fen dafa metti mm-hmm. dafa metti di rey ay doomu jàmbur di ko jiñ ci ki nga xam ne deful dara dafa metti waaw ah, mais ma koy waxaat rek na pare bu baax te takkuwaat. lii ñëwaat ci kawam narul neex. mais képp koo xam ne bëgg na Ousmane sonk na koy defaral sarax bu weex incha allah rabbi dina dal xëy na dina dal. sarax na ñu mais nañu parewaat. Mhm. liy ñëwaat waat ci kawam du neex. Mhm. te yàggatu. Mhm. soxna Seynabou am na ñi nga xamante ni ñi ngi am yaakaar. Euh, que ni jour tabaski. ñu bari ñu ngi naan est-ce que duñ jëli Ousmane Sonko tombeek euh, réew mi calme ñoo dem julli ci julli yeeg yu demee noonu euh, loolu lan nga ñu ci mën a andil parce que Sénégal yëpp ñu ngi xalaat loolu que jour tabaski mu nañ ko dem jël yóbbu ko. waaw Abdou man du wax ci foofu. li ma mën a wax ba mën ko wax mooy liñ koy pareel moo ëpp lu fi jaar. ah bon. Mhm. boo amaatee mën nga ñëwaat ñu def émission. que mën nañoo jàpp que ni. lii ñëwaat mu gën a metti li fi jaar. man maay wax ak yow de. <laughs> non non maman foofu faa taxaw si parce que. Mhm. dañoo gis jamono ji comme ni ma la ko expliqué kii di Ousmane Sonko mënul dem fenn. Mm-hmm. mënul sax génn këram yi amaana des fois day génn jongale yor foo duggaat. Mm-hmm. alors Sénégalais yëpp yaakaar que ni loolu dafa metti kon boo mm-hmm. toogee ne am nga leneen li nga xamante ne ni dina dikkaat. waaw waaw day nekk rek suba. nekkul loo xam ne nii dama ne tey la suba leen am déedéet li ma gis muy ñëw parce que yàlla daf ka bindee ni nga xam ne day déranger. day te day yóbbu fitu nit. am na ñi nga xam ne buñ ko seetaanee sax tiit. yaa ngi comprendre. Mhm. te yàlla ni ko bindee rek la ko bindee. Mhm. yàlla ni mu ko bindee moo ko mooñal boppam defaree ko ni ko defaree boppam. Mhm. tuumaal geek weddi geek jiiñ lu metti lépp Ousmane Sonko rek lay doon noonu la ko yàlla bindee. man de ko sopp laa. te yàlla na ko yàlla tegal boppam loxoom ci barke sëñ Babacar Si. allahumma amiin euh, yaakaar naa loolu am na solo mais maman euh, ba léegi rek dafay bëgg ñu taxaw foofu parce que mën naa ne actualité bi jamono ji dafa demee côté. Mm-hmm. Euh, comme ni ma la koy expliqué keroog gis nga ñu donc yeew yi. ne mm-hmm. dañ koo bëgg mu libre pour mën a tabaskeek yu demee noonu. Mm. Ah, mu nekk kilifa euh, war daan dem tabaski di di dem julli jeeg yu demee noonu ñu tere ko loolu. Mm. ñi nga xamante ni dañ doon ñëw pour xeex loolu aussi keroog gis nañ leen ñu leen di gaz yeeg yu demee noonu. Mm-hmm. bi nga ko seetaanee ndax nga ko dundee. waaw mooy li ma la wax rek ndax man lu bëri duma ko seetaan mais lu bari dama koy gis. Mm-hmm. ndax yàlla mooy may. Mm-hmm. du seetaan dama koy gis. du ma mën a wax ci la mu dundee Tabaski gi ak la muy waaj a dund mais li mën a mën a xamal mooy liy ñëw ci kaw mooy gën a mm-hmm. metti liy ñëwaat mm-hmm. li ñu romb waa d' accord euh, yaakaar naa loolu am na solo bu baax a baax euh, ñu ngi jot léegi ci information que ni Ousmane Sonko day def li nga xamante ni moom mooy point de presse euh, ci kanam tuuti naam nañ ko bàyyi xel parce que lu nekk jot na maam xew ci ginnaawam ni ñu koy def bi nga ko waree seeseek du dem ak yu demee noonu lan lañ mën a xaar. ci li nga xamante ne Ousmane Sonko génne na depuis premier juin ba léegi génn kenn xamul ci lu mu nekk. Mhm. Mhm. waaw loolu li ma ci mën a wax mooy ñi mu nekkal nañ ko taxaw. ñi mu nekkal. Mhm. waaw nañ ko taxaw. famem wala wala ñi nga xamante ni ñoom la bokk ak parti ak yu demee noonu. taxawu ñi mu bokkal parti yi ñu bëri joxuma leen confiance. ah bon waaw li may gis. war bi ndaw la am na ñeneen ñuy waraat. ñu baree baree bari bu seen sago tay fi Ousmane Sonko yegg si ñoom ñu yegg si fa. ak ñoom maa fi ñu ànd ak Sonko ba mu toll fii. waxoon naa leen ko daaw ñu gisaat ko ci ren. Mhm. xaaraat leen. waxoon nga ñu ko aussi tamit ci Barthélémy Dias. waaw nañ ko xaaraat nañu xaaraat yeneen ak yeneen ak yeneen. ñu ko gën a jege. ñu ko gën a jege. Mhm. waaw. accord. mais euh, sëgam man maa daan toog di ko meree naan lan moo tax doomu jàmbur yi di ko topp di dee. lan mhm. moo waral affaire viol kese tax ñit ñi di sànku di def lii mhm. te man damaa bëgg sonk ba sama xol jamono ji mhm. kon ñeneen ak ñeneen yàlla dina leen xëcc ci côté waaw d'accord laa gis Mm-hmm. Mm. Euh, yaakaar naa loolu am na solo bu baax a baax mais euh, euh, dañuy jóge foofu rek maman dem. Mm. ci li nga xamante ni moom mooy actualité bi jamono bi mm-hmm. yaakaar naa loolu ku ko ku ko déggul rek maanaam gis nga toog fi ñu koy waxtaanee ak yu demee noonu. Mm-hmm. mu nekk audio Kouthia yi nga xamante ni féete na. alors mi wax ci Amina Poté. dem na Amina Poté giwén la dem ci Pape Cheikh Diallo ne ko borom ñaari tur yeeg. dem aussi ba ci Bouba Ndour di wax que ni xale boobu nga xamante ne nekkoon seen petit di ay sa ak moom doom ak yu demee noonu. mu nekk ay audio yi nga xamante ni sénégalais yi rafetluñ ko. Mhm. Euh, ndax nga gisee coowal audio Kouthia yooyu. waaw dañ ne rek euh, àdduna. Mhm. lépp lu ci waay di wax di nga ko mës a waxaat. Mhm. ndax fii adduna kese la. loo mën a dund lu mu neex neex da ngay faatu. kon looy wax rek na ko waxaat. man soxna Seynabou rek lu ma wax mën naa ko waxaat. mais man li ma gis mooy man man en tant que soxna Seynabou. Mhm. ñaanuma yàlla roy jikkoy Kouthia. ñaanuma yàlla roy jikkoy Kouthia. Mm-hmm. ah bon. ndax dañ ma ko mës a présenté. Mhm. ci ay minutes. Mhm. ma gis ku romb rek mu wax ci moom. ah bon rek mu wax ci moom ci ci écran laay waxee. de kon maman yow yaa Kouthia ak li coow li am am ngeen jaar jaar boobu nga. benn yoon la ñu mës a toog te sama benn xarit moom ma ko mës a présenté muy Alioune Mbaye maa ngi koy nuyu à passage. mu présenté ma ko même pas une heure de temps trente minutes lañ toog. ah ñu nuyonte. Mm-hmm. fa muy defee Kouthia Show. Mm-hmm. mais ba ma fa génnee jour boobu laa gëj xam lan mooy Kouthia ndax man dama nekk nit bi nga xam ne. Mm-hmm. Euh, lu ma nit mayul soxlaw ma ko. lu may am honneur laa koy amee. kuy waxanteeg man ci dëgg la ñuy waxtaanee. bu ma nit tegee tegalee ay milliards. te àndul yàlla bëgguma. mais ci minute yooyu nga xam ne présenté nañ ma ko maa ngi taxaw di reetaan sama xarit mu ngi ci biir. Mm-hmm. li ma gis ci moom ku romb ni mu koy waxee ni mu koy sabootee ni mu koy jëwee ni muy reetaanee. est-ce nekkul day kaf di ree comme ni nga koy gisuma loolu. man soxna Seynabou nawloo ma ko. yàlla miy soppi rek yàlla na ko yàlla soppi. Mm-hmm. may mm-hmm. waxaat rek Amina Poté ne ko loolu du dara. jigéen moom. caga nga bandi nga wayu nga giwin nga day tax nga gën a am force. man mhm. loolu laa gis. Mhm. ndax dina tax nga gën a xamaat yaay kan. Mhm. ndax Sénégal moom ku la mere rek génn sa secret loolu lañu ñu xam mais man moom man. man jigéen man. ñaanuma yàlla jur ku mel ne Kouthia. d'accord mais maman li nga wax nii dafa mel ni am na. bi bi bi coow li amee def nañ tax ku ci mel ni Kouthia Tampi bi nga ko jëlee moom it wax na wax ju mel noonu ne Kouthia da ko boole ak ay góor gi demee noonu. man daal li ma mën a wax. foofu laa mën a yem. man lépp lu may wax rek dafa am lu fu ma ko teg. bu seetaane sama vidéo bi bés bu ko ñoree dina ma xëy na dina xam dina bëgg a xam. Mm-hmm. waaye bés bu bëggee xam yor na seen numéro bu leen wooyee ñu toog bu boobaa dina xam. yéen di ngeen xam fan laa ko teg daal mais man nawloo ma Kouthia. ah bon. Mm-hmm. ndax nit. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa ne nit da nga war a dëggu. doomu aadama du wa wax ci ginnaaw doomu aadama. man Abdou su ma la meree foo mënti nekk dinaa la woo. waaw wax la yàlla ngay tooñ du ko baalu mais sa morom. Mhm. boo ko tooñee bu la baalu foo jëm. d' accord naam ah, maman moom dafa def audio yi mais dañ ñu xamal que ne moom soxnaam la woon. Mm. ba audio yi fuy teg ci demee noonu. Mm-hmm. est ce que toor bi da waaw euh, euh, mën nañoo jàpp que ni ku Kouthia moo wax. Mm-hmm. mais lu tax toor bi gën a euh, doy waar mais est ce que nekkul jabaram. bi moom moom mi nga xamante ni moom moo joxe audio yi pour mu mm-hmm. génn aussi tamit bëgg ñu wax ko foofu noonu en tant que mère de famille jigéen amul Mm-hmm. jigéen làmmiñ rek la am euh, nawloo ma ko mm-hmm. baat boobu am na fu ma ko teg daal mais maman à chaque fois euh, dañ lay dégg nga ni nawloo Kouthia lan moo waral waaw ndaxte mooy li ma la wax mm-hmm. man lu ma mënti am ci àdduna même doomu aadama bu ñëwee seet ma wax ñaari wax yu yu àndul du ma doo toogaat man ndax man ci sama liggéey bi bu ma la defaralee dara te gisoo ko ci man damay taxawaat wax la ko. Mhm. ne la sentir naa ne. li ñuy liggéey man ak yow sentiroo ci sa bopp. Mhm. li nga ma joxoon ma ngi nii. sa gëm man maa koy def. Mhm. kon man du ma ànd ak koo xam ne nawloo ma ko ci kàddu. d'accord waaw lu leen wax ci àdduna lu dul turam ak santam du dëgg. kon audio yi mën na jàpp ka ni. xaw ma du ma wax.